awuzu billahi min asheytaan irrajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu leen di nuyu di leen ziar di leen dokkeel di leen balax bu baax di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bii di alquranul karim jikko shifa di leen dokkeel bu baax ci ànd bi di ñaan comme ni ko doon waxee ngeen abonné te partagé ku am laaj mën ko envoyé ci numéro whatsapp yi waaye ñu ngi leen di ñaan bu baax comme li ñaan bis bu nekk mooy ku am gént boo gént demal seet ko ci page bi def recherche YouTube ni ñu recherche YouTube ñu bari xam nañ ko soo bindee su fekkee gis nga ne li nga li nga gént def naa ci vidéo ba pare baax na soo ko gisul nga envoyé message vocal WhatsApp te bañ a woote mënuma di jël appel yëpp ñii woote su doon maa leen jël nii ma toogee def vidéo sax nu ma ko mën parce que nit ñi dañuy woote toujours toujours moo tax ñu organiser ko par audio WhatsApp ma jël temps boo xam danaa ci toog tontu kenn ku nekk ku envoyé sa audio ba pare pour waxaat wala nga wàcce wàccewaat audio bi tant que deful deux jours boo ko envoyé taaxilu rek te xam ne yàgg-yàgg danañ la tontu benn ñu tontu la ci sa whatsapp ci saa si wala mu nga xaar heure bi ñu tontu la su amul da ngay xam ne li nga laaj da am ñu ci laaj bi ba dañ koy boole def ko vidéo def ko vidéo comme nii jox leen ko lu dul loolu soo toogee deux jours tontuma la nga wàccee doog a wàccee audio bi mais ci même jour boo ko envoyé wàcce waal ko rek da ngay da ngay perte bi liggéey parce que itam dama ko am na ma ko organisé te boo ma joxee audio tontoo ko nga wàccee waat wala nga bindaat mbaa nga waxaat rek da ngay yàq li ma doon def lépp loolu daal ñu leen koy ñaanal bu baax a baax tey nag li ñëw ak yéen ci buntu bu am solo boo xam ne def naa semaine bi yëpp li ci ëpp ci semaine bi danañ ko ci dellu mooy gént gis xale gént gis xale li tax ñu ne dañ ci def ñett ba ñeenti vidéo dafa bari façon xale ak ni nga koy gisee moo tax ñu def ko noonu te incha allah semaine bi yëpp da ngeen ko ci mën a jot ñi doon laaj ci wàllu or ak xaalis yooyu ñu xam ne seen ba ci topp dinañ ñëw incha allah kon balaa ñu ciy ñëw ñu leen di présenté war suñu saafara yi nga xam ne waxoon nañ ko waxati ko mu yoo xam ne doon nañ ko liggéey pour ñi nga xam ne dañ koy di soxla bii def naa am nañu ko jotoo am xam nañu li ci nekk ci njëriñ saafara la boo xam ne incha allah nit ki su ko jëfandikoo lépp loo xam ne lu mu fekkee ci moom la ci wàllu rab cat làmmiñ liggéey shayatin yi lay yàqal feebar yi nga xam ne ñoo la ko teg bu soobee yàlla boo ko jëfandikoo feebar ba dina dañ wala loolu nga ci doon xaar ci kàttan yàlla dina dañ ci diir bu gàtt gàtt incha bi kazalika saafara boo xam ne moom itam am na ñu ko jot a jël xam nañ ko muy dox ci lépp loo xam ne dafa aju ci ubbeeku wala bayre wala wërsëg bu yokk wala nit ko xam ne sa li wërsëg dafa tëju wala yu mel noonu ñu liggéey ko ci alxuraan muy saafara bu am njëriñ ñu ngi koy joxe ku ko yittoo mën nga jokkoo ñun ci bi ñu jotee par whatsapp te njëg yi danañ ko woyefal ba ñëpp mën te jot incha allah kii nag moom bari danañ koy faral di soxla mu dellu dañuy faral di taxaw walla ñu yéex am doom maanaam nekk ci sëy amu ko ci njaboot bëgg ci njaboot amu ko wala boog nga doon am njaboot ba ci biir nga daal taxaw incha allah secret boo xam ne ku ci jokkoo ak ñun donc am ci kàttan yàlla incha allah ñu ngi ko bari ko gisee moo tax mu bari doon ko laaj ñu doon ko taxaw la waaye disponible li ñëw ci gént gis xale gént gis xale dafa ay maanaa yu bari yu ko wutee ñëw nekk baax lool léeg-léeg ñëw du baax li ngay jàpp danaa ñëw ci gént gis xale bu rafet daan ci def vidéo xale bu rafet à part ba yéeme maanaam rafet nag kawar gi lu rafet daal ci xale boo xam ne rafet na ba jéggi day suñu ko waaye xam nga ko dinañ ci ñëw ci vidéo bi spéciale à part incha allah waaye damay njëkkee ci benn bu fekkee xale bu rafet nga gis te fekk jamono yi nga koy gis ci gént laa fekk nga am ay bor yu diis nit ñi di la sonal di la fayee ko bor wala nga nekk ci jafe-jafe jàppal ne yàlla dina la suturaal ba baax baaxee la bor yooyu danga ko fay ci lu gaaw incha allah. bu fekkee dalaa fekkoon ci njàqare ak i xat-xat wala ay jaaxle jàpp na yàlla dina dimbali loolu dina dañ bu fekkee dalaa fekkoon ci kaso koo xam ne dafa nekkoon ci jafe-jafe ba génn ba nekk kaso nga gént gis xale bu rafet moo xam bu góor moo xam bu jigéen jàmm jàpp ne dalay firi génn ci kaso ba kon gént bu baax a baax la leen kull kii ñëppoo bokk gént gis xale nga boot ko ci sa ginnaaw laaj la bu fi ñëw gént boot xale ñépp ko bokk lan lay firi baaxul danay firi coono yu bari coono àdduna yu bari bari ak yi xa yittee ki dan-dan yu méttee ki maanaam ay xat yu métti gént gi baaxul bu fekkee da ngaa gént gis xale bu ndaw rek xale bu tuuti ak tifl saxiir xale bu ndaw boo xam ne paaseegul namp gént ko ci commerçant gént gu baax lan lay firi gént gu baaxul la laa bëgg wax baaxul lan lay firi mooy da am perte wala nga ñàkk lenn ci sa alal baaxul gént xale bu ndaw ci jigéen bu amagul borom kër li muy firi ziwaaj maanaam sëy lay firi gént xale boo xam ne dafay dafay perturber di jaxase te yow mënoo koo maîtriser nga dàqe ko jéem lu nekk mu tëdd ci baaxul dalil waa dex humum wa lan lay firi ay xat-xat ak i njàq njàqare baaxul gént xale buy jooy jooy yu métti jooy yu tar baaxul lan lay firi taddulu alal fachal échec lay firi bu dee ci njàng bu dee ci liggéey bu dee projet boo amul baaxul dana firi échec mbir moom mooma wala iyaazu billah wallahu taala ala wa alamu saafara nag mën na ci am mooy sàkkal sarax bu dee da nga ci toll mën nga jokkoo ñu bari nañ la tegtal ay sarax gént gis xale bu ndaw ci jigéen boo xam ne dafa nekk ci sëy jàppal ne du la fekkoon ci jafe-jafe wala ci ay xat-xat wala problème famille wala jaaxle-jaaxle sa boroom kër yàlla mën na laa may saafaraal la loola incha allah danga ci mucc bu fekkee nag jamono yooyu nga gént amuloo benn problème li ngay li muy tekki wa illaa fa wa hamd bu la fekk ci jafe-jafe jafe-jafe dana jeex wa illaa fa wa hamd danay firi ëmb incha allah balaa yàgg gént teg xale ci sa kaw mbagg nii nga fab xale foofu moom nga fab ko nii parce que loolu dina ñëw ci yenn vidéo lan lay firi li muy firi mooy tadullu alal mataib ay coono ak i xat-xat lay firi danay firi bari ay responsabilité maanaam ni yenn la responsabilité yu allah ru gis xale daal danay firi danay firi texe incha allah bu fekkee nag gàddu xale nii gàddu xale yi ci jigéen wala ci góor nga tee ko niin rek lan lay firi taxqiqum niya xaaliya maanaam rawatina nag bu fekkee da koy da nga koy nàmpal nàmpal ko dana ci ñëw à part incha allah dana ñëw vidéo boo xam ne nàmpal xew rek lay wax gént gis xale bu ndaw gis ko ci shaklin xabeex maanaam melokaan boo xam ne dafa raglu gént gis xale bu ndaw bi shaklin xabeex maanaam mu njàng lool ba kenn ñi mu ko baaxul bu mashakiluhum danay firi problème àdduna ak yi xat-xat ak yi jafe-jafe baaxul nampal xale ci jànq vidéo bi dana ñëw incha allah waaye ci fii li nga jàpp dina firi sëy bu fekkee jigéen bu amagul borom kër ngeen di gis ay xale yu baree bari at faal maanaam nga gis ay xale yu baree baree bari ci kum mën a doon imma rizq lil ba maanaam bu fekkee ci ko amagul borom kër wala ko amagul soxna danay firi wërsëg aw ziwaaj danay firi itam jëkkër wala soxna ci ku amagul borom kër aw xaml lil mutazawijin danay firi ëmb ci way denc yi maanaam ay xale yu bari jigéen bu am borom kër wala góor gu am soxna gis ay xale yu bari danay firi ëmb léeg-léeg rajul mutazawij maanaam góor goo xam ne dafa nekk dafa nekk ku nekk ci néegu sëy mu gént gis soxna léeg-léeg danay firi mu gént gis xale léeg-léeg danay firi amaat beneen soxna loolu dana koy firi léeg-léeg allah am na ñu wax ne déedéet danay firi lan lay firi ay xat-xat ak jafe-jafe waaye lu njëkk li mooy li gën a wér ak tiflul jamil lil mar'ati mutazawwija nga gis xale bu rafet waxoon naa ko fële bii am na vidéo bi ñu à fii dañ ciy wax ci jigéen joo xam dafa nekk ci néegu sëy xale bu rafet ba ba jéggi dayo lan lay firi danay firi texe danay firi wërsëg danay firi ëmb lay lekk bu dee xale bu rafet ci xale bu jigéen bu amagul borom kër danay firi bidaaya saayida léeg-léeg maanaam njëlbeenu texe maanaam am commencé am dund bu bees dund bu neex ak bu changé ci ni nga doon firi waa kay euh, waqila amal waqila zawaajis maanaam am na ñu wax ne da liggéey la maanaam da nga am place liggéeyukaay am wala boog mu nekk sëy léeg-léeg maanaam ci jànq boo xam ne amagul borom kër mu gis ci xale bu ndaw bu rafet danay firi ñetti yi ma la wax bidaaya saida danay firi amal yaa ak wazifa maanaam place liggéeykaay wa qiila zawaaj ñett yi yëpp mën na ko firi ru'yatu tiflu lil asba maanaam gént gis xale xale bu ndaw bu rafet ci eh, uzzaab laa bëgg ci xale bu góor bu amagul borom kër léeg-léeg dana firi sëy ci lenn ci ñi la jege min ahadil aqaarib maanaam ci famille wala koo xam ne jege na la daal danga ko am soxna mawtu tif xale bu génn àdduna ci gis ko ci gént baaxul lan lay firi mooy bu la fekkee ci projet wala mu nekk fekk la ci ay mbir wala mu nekk fekk ci place liggéeyukaay bu confortable maanaam nga am liggéey bu baax danay firi ne foofa doo fa doo fa yàgg doo fa doo fa yàgg bu la fekkee ci daal liggéey wala yu mel noonu wala bu fekk di ci sëy mën na am sëy ba doo ca taxaw am na ñoo xam dañu wax ne alaqa xaati ah maanaam da nekk ci relation maanaam di bëggante ak nit koo xam ne ay danger moo ci ëpp maanaam relation ba nekkul bu baax am na ñu ne waaw waqi la masakin maanaam ay problème ak jafe-jafe waaye ñi la koy yóbbee mooy lenn ci sa entourage kon daal li ngay jàpp mooy gént gis xale bu ndaw bu génn àdduna baaxul li moo dellu ci premier vidéo bi ñu leen ci gént gis xale bu ndaw ñu ngi leen ñaan ngeen abonné te partage ko am laaj ñu ngi ko envoyé ci numéro bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.